médicament bi ba tey mais ñuy ñëw sur le plan local traditionnel parce que foofu aussi soulever nañ ko mais balaa loolu damay fàttali rek ne ñi ñuy suivre mën nañu euh, bokk ci waxtaan bi bu fekkee bëgg nañu poser question également ils peuvent appeler euh, ah. via WhatsApp au 77 883 41 83 bu ko defee ngeen man poser seen question euh, docteur alors li ma lay wax léegi docteur dina bëri également ay témoignages yoo xam ne ay malades de Covid 19 ñu ngi koy def. Mhm. ne biñ leen teste positif soit dañuy utiliser jinjeer muy gingembre wala ñuy utiliser laaj wala ñuy utiliser ay feuilles de menthe et cetera et cetera yooyu noonu est ce que am na impact am na dina mën a am impact ci ci kii bi ci euh, feebar bi. Euh, xam nga scientifique moom buy wax. Mhm. il faut mu wax li nga xam ne moom la jàng moom la xam euh, gingembre jànguñu ne dina am ay sur maladie respiratoire. peut-être mante mante gis nañ ne yenn saa yi mu am effet mais pour le cas virus bii nii yooyu yëpp benn amu ci efficacité laaj bi sax au contraire gis nañ ne parce que ñun suñu liggéeyu pharmacie bi yenn saa yi nit ñëw ne dama jël lañ dama dégg laaj baax na mais daf ma indil problème biir bi daw buur bi metti et cetera ñu wax daal que xëy na nit ñu mën nañ ko jël pour dolli kattan seen yaram et encore a quelle dose mais daal du benn ci ñoom moom mooy faj feebar bi wala mooy dem rey rey rey virus bi. Mm-hmm. d'accord feuille de bi aussi. su soulevé nañ ko fii. très bien et il faut pas oublier aussi que médicaments yu bëri c'est fait à base de plantes également. oui mais confusion bi ñu war a éviter. Mm-hmm. mooy jàpp ni feuille de Nîmes ndax dafa wax dafa am chloroquine. Mm-hmm. amul chloroquine saa n'a rien à voir. Euh, parce bu doon moom la xëy na Afrique lu am gañe bu baax ci production de chloroquine mais chloroquine hydroxychloroquine garabu niim amu ko c'est pas efficace du tout li ñu xam ci niim mooy surtout effet euh, sur les insectes et ça c'est vraiment c'est pas le cas particulier euh, am na ñu koy utiliser pour dàq ay insectes wala pour kii mais vraiment sur le plan médical gis ñu benn activité niim muy ku koy suuroo ak ku koy naan que dina am effet ci feebaru comme genre feebar bi ñu dal nii. d' accord alors dañuy ñëw maintenant ci wàllu unité de production de médicaments yi. Uh-huh. ci Sénégal euh, ci Afrique particulièrement Sénégal euh, bi feebar bi tàmbalee law ci réew mi euh, soulevé waat wax produire :fra euh, chloroquine :fra gannaaw ba ñu constater :fra ne am na impact :fra na ay résultats par rapport :fra ak prise :fra en :fra charge :fra traitement :fra maladie :fra euh, euh, Sénégal boobu %e est ce que :fra jàpp nga ne ak fi ñu toll ni crise bi impact yu mu am dans :fra plusieurs :fra secteurs :fra de :fra mën nañu am yaakaar ne mën nañ ci dugg am ci ndam jaarale fa également pour am suñu propre unité de :fra production boo xam ne dafay law waaw effectivement :fra Médis jaar ci am ci ndam mën na nekk mais li mënul nekk dans li média mooy Médis produire hydroxychloroquine kooku mënul nekk. tant c'est ce qu'on fait quoi. mais waa Médis yi seen bopp technicien parce que euh, loo gis rek dafa am ñi war a wax ak ñi ak ni ñu seen yaakaar xam nga avoir moyen maanaam Médis mën a defar chloroquine am am am équipement yi am nit ñu xarañ. dafa wuuteeg defar ko suba industrie pharmaceutique dafa am nu muy doxee gis nga euh, industrie déjà bu toogee ñetti weer liggéeyul dafa am ci ñuy tuddee encore requalification xam nga usine dafa am ci ñuy wax traitement der maanaam du climatiseur rek ngay taal di di liggéey yooyu yëpp da koy requalifier parce que garab bi génn dafa war a mucc ayib warul am microbe warul am poussière wala am impureté warul am dara foog nga requalifier tout cela maanaam defaat ay test pour ne ni ngelaw bi romb baax na est-ce que machine bi ni muy traité ngelaw li baax na est que machine bi defar garab bi ni muy tourner baax na est-ce que loolu day jël temps loolu ay weer laa wax mais ba jëlee hydroxychloroquine bi mille 2002 pratiquement ou deux dans les années début dis ba léegi Sénégal defaratu ko woon kooku bu nee suba dama koy defaraat le technicien pharmacien responsable beeg responsable de production bi xam nañu mënul nekk la preuve presque déggoo leen si mm-hmm. c'est des ministères c'est ñi fa doon liggéey ñooy wax mais ku nekk ci industrie pharmaceutique xam na ne euh, il faut des plusieurs semaines minimum minimum six semaines à deux mois pour requalifier et redémarrer production mm-hmm. loolu mooy fexe ba usine bi nekkaat à point mm-hmm. maintenant il va se poser un autre problème c'est les intrants la matière première nooy def ba indiwaat ko ci réew mi parce que tey guddi yi ñu toll ku bëgg matière première hydroxychloroquine foog nga xaar ay weer balaa nga see jot hmm. lu tax parce que ñaari dëkk parce que ñooy ñooy defar matière première monde bi yëpp muy Chine muy Inde hmm. Chine bu jógee ci épidémie bi ren lancé wu nekkaatul vraiment euh, niveau de production bi nga xam ne mën na approvisionner waat correctement tout le monde monde bi yëpp mais deuxième chose hydroxychloroquine bi tant que ñu ko doon utiliser pour faj polyarthrite yeeg yooyu. xëy na li ñu soxla woon bu dee une tonne deux tonnes par mois tey jii dem na plus de cent tonnes parce que monde bi ba ko soxla su boobaa euh, yow mi soxla peut-être vingt kilo de matière première comme Sénégal ak Europe bi soxla ay tonnes du ngeen ko jëndee même prix te même kiy defar matière première mënul traiter seen commande de la même manière ça c'est des réalités. il faut pas la face c'est-à-dire. ki defar matière première hydroxychloroquine bi du jël commande Sénégal commande Guinée commande Mali parce que tamit loolu beneen défaut la ci Afrique dëkk bu ne da ngay def sa commande personnelle mu doon ay quelques kilos par rapport à la commande de l'Union européenne ou de Sanofi France qui travaille pour toute l'Union européenne. Mmh. c'est juste pour dire daal que c'est pas quelque chose de simple il ne s'agit pas d'aller chercher demain le produit en en en Chine ou en Inde. on a même vu avec Inde bi Inde bi problème amee confinement dafa ne dootuma jaayati benn produit à l'étranger il a fallu États-Unis réagir pour que Inde ni waa d'accord naa commencé tegg sama tànk tuuti juste pour dire que la solution mooy fexe ba ñiy defar déjà am la capacité de faire pour tout le monde ñu dem fa am fa stock bu ñuy permettre de prendre en charge la crise actuelle relancer nag Médis fexe ba Sénégal am yeneen unité de fabrication pour prendre en charge notre problème de de de de de euh, fabrication locale de de médicaments. d' euh, matière première bi lan la précisément. pour euh, defar chloroquine bi. très bien matière première bi day doon bokk hydroxychloroquine boobu ñuy wax mhm. nga war ko jënd pur ak li ñuy wax ci garab excipient xam nga tey boo jëlee benn comprimé garab bu ñu la bindal je dis efferalgan un gramme mhm. mooy 1000 milligrammes. mais boo tegee comprimé bi ci balance comprimé bi mën na dem ba cinq grammes c'est-à-dire dafa am mën na dem sax ba dix grammes euh, dafa am un un milligramme bi nga xam ne mooy paracétamol bi ak yi muy àndal ñu tuddee leen excipient mooy amidon beeg yeneen yi saccharose ak yu bari da ciy dugg yooyu mooy matière première pour fair le comprimé léegi nag mu des beneen matière première mooy plaquette boobu ngay gis dafa am lu ñu tuddee film PVC. bu dee alu kii la am euh, aluminium mooy kii boobu euh, yooyu yëpp c'est des matière premières qui rentrent dans la production du médicament parce que médicament bi day doon li ak nag boo paree dem mel jëli les produits de condition les kii de conditionnement la matière de conditionnement hmm. notice boobu da nga koy defarlu boîte bi muy nekk foo nga am ko carton yi loolu daanaka mooy mais pour ne pas rentrer ci détail yooyu mooy juste daal matière première pure bi et pour parler simple comme je dis boo jëlee Doliprane ñun la paracétamol la dafa am paracétamol ak yeneen yu muy àndal poudre boobu ñuy àndal ba mu doon comprimé loolu mooy matière première et ça y a presque deux pays dans le monde Inde ak Chine rek ñoo koy defar. ñoo koy defar waaw parce que dëkk yëpp dañu délocaliser la preuve même France il a fallu crise bi am pour pour mu yaa xalaat léegi delloo si waat la production de matière première en France pourquoi ñëpp defoon ko parce que fële. la mais d'œuvre n'était pas chère maanaam ñu ngeen di liggéeyloo fay bi diisul woon ak impôts yeeg yëpp ba tax na ñëpp doon demoon foofu Chine moo doon produire soixante à quatre vingt pour cent moog Inde de la matière première euh, yi ñuy permettre ñu defar garab.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 en temps réel